asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bisbu bu tedd bi ak ci waxtu wu tedd bi ak ci barab bu tedd bi ñu nekk audu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwaan wa tamkin mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bi ak ci waxtu wi ak ci barabu tedd bi ñu nekk di leen balu àq te di leen bal àq di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu sàmm sunu kilifa gu mag gi nekk ci sunu kanam guddal aw fanam lool wéral aw yaramam lool may ko tawfiq ba mu àggale li mu yéene ci diine ji ak li mu yéene ci yoon wi te nu ànd ko ak moom sunu waxtaanu tey nag ñu ngi koy aj ci benn tomb bu mag boo xam ne bu nu war a soxlaal la wala bu war a soxlaal mbooloo mi yépp la ndax tomb la boo xam ne li nuy jëf yépp ci ay jaamu yàlla wala ñu ko ñu di ko ci ay safaan ci lañu koy jëfee te mooy sunu cër yi nu yàlla dénk tamay xéewal goo xam ne yàlla moo nu ko xéewalee ci xéewal mi bari yi nga xam ne kenn mënu koo lim wa in tauddu nimatallahi laa tuxsuha dénk nu ko digal nu it nu jëfandikoo ko ci lépp loo xam ne lu koy gërëm loo la waaye tereenu it ñu ko jëfandikoo ci lépp loo xam ne lu koy merloo la loolu mooy cër yi nga xam ne moom loonu yàlla dénk te nun ñépp nu nekk ay responsable ci cër yooyu te it bu ëllëgee sunu borom tabaraka wa dana nu ko laaj dana nu ko xisaabaale ca la nuy xisaabe ci la ñuy jaamu yàlla ci la ñuy moye yàlla kon war nañoo xam lu tax yàlla sàkkal nu ko ñu def ca loola war a xam lim ñu ci tere ñu bàyyi ko inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula naka noonu tam li tax ñu war koo sàmm mooy ëllëg ba sunu borom di isaab jaam ñi cër yooyu dañuy jóg di waxal seen bopp lañ doon def tànk ba jóg di wax fa mu demoon làmmiñ wa jóg di wax la mu doon wax nopp ya di di la mu doon dégg boroom moom taxaw fale nga xam ne du ci mën dara yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yacmaluun wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay cër yépp dañuy wax benn cër bu di def la mu waxoon su leen seen borom seeni borom waxee ne waaye lu tax ngeen du ñu seere lii ñu ne yàlla min mi waxloo ñépp moo ñu waxloo yàlla moo ñu waxloo kenn ku nekk di wax la nga defoon bu boobaa nag seere su baax dana fa am solo kon cër yooyu nga xam ne war nañ koo wattu war nañ ko sàmm cheikhul xadim radiallahu taala anhu wax nanu ko jàngal nanu ko wax nanu it benn bu ci nekk lu ñu koy jariñoo ak lu koy wattandikoo ci téeréem bi tasawul shubaan demee ci baabu tasawuf gis nañ fa ab bunt bu mu ubbi boo xam ne daf ne faslun fil a'daa benn bunt ngi nii boo xam ne ci cër yi rek ci la jëm mu ne wal tax taxfadul a'daa batnun wa lisaan farjun wa rijlaani wa aynaani yadaan da ngeen wattandiku seen cër yii leen yàlla sàkkal muy seen biir seen làmmiñ seen pëy seeni tànk seeni nopp seeni yoxo ak seeni nopp juróom-ñaari cër yooyu yàlla sàkkal la ko war nga koo wattu bu baax mu ne nag saabiuha usnaani man laaraha anil maasi kulliha yantafia képp ku sàmm cër yooyu ba defoo ci lu dul noonu lu dul lu la yàlla digal bu ëllëgee ak si biir da nga jariñu ci cër yooyu bu baax a baax waaye fal kullu minha jumlatan qad qaabalat baaban mi na niiraani fi ma qad sabat bunt juróom-ñaari cër yooyu noonu ñu toll di juróom-ñaar bunti sawara noonu la toll di juróom-ñaar nee na bun cër bu ci nekk daam bunt bu mu jàkkaarloo ci sawara nga xam ne boo moyee yàlla ci cër booba buntub sawara boobee ca la lay dugal benn cër bu nekk ci juróom-ñaari cër yi dafa jàkkaarloog buntu sawara boo moyee yàlla ca buntu boobee ngay duggee boo légee sawara wa kullukum yasalu an raayin raa kama bihi ata xadisun man waa loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ne seen yéen ñépp ay responsable ngeen seen lépp responsable la kullukum masulun wa kullukum masulun an raayati kenn ku ne ci yéen ab sàmm nga la nga yoroon dañ la ko laaj laaj la sa tànk yi loo ci doon dox sa loxo yi loo ci doon jottaliku sa làmmiñ wi loo ci doon wax sa gët yi loo ci doon xool sa nopp yi loo ci doon déglu sa pay bii loo ci doon jëfandiku lenn lu nekk sunu borom tabaraka wa la dana la ko laaj ëllëg dana la ko xisaabale ëllëg cër yooyu nag yooyu yépp am solo yépp mat a sàmm waaye benn lañ koy jël par benn waaye ba ca gën a am solo ñu war caa njëkke mooy làmmiñ làmmiñ wax wax ci lañ njëkk moo moo njëkk ci cër yi nga xam ne moom lañ gën a war a mën a sàmm moom lañ gën a war a sàmm moom lañ gën a war a toppatoo ba du jàdd ndax noonu mu amee solo moo tax yow na ci hadiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne cër yépp saa bu ñu xëyee dañuy muslu làmmiñ di ko saraxu ne ko jubal jubal soo jubee ñu jub waaye soo dëngee ñu dëng cër yépp loolu lañ koy wax ñun dañ laa topp rek noo mel rek noonu lay mel ida asbaxa ibnu aadam fa in al aadaa tadkuru lisaana fa taqul ittaqi llaha fiina fa innama naxnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta wajadna ñépp loolu la ñuy wax seen làmmiñ bu làmmiñ jaare ci yoon ngay wax lu jub di def wax jub cër yépp dañuy topp làmmiñ wi ñoom di def lu jub kon làmmiñ lu tuuti la ci gis waaye nag lu màgg la tam topp topp yàlla gu màgg lañ ci mën a def topp yàlla mooy yàlla gu màgg yit lañ ci mën a def noonu mu tuutee noonu la màggee ci topp yàlla noonu la màggee ci jaamu yàlla muy li ñuy wax paaka ñaari boor mën nga koo jëfandikoo ci aw yiw am ci ngërëmal yàlla ak ajjanaam waaye mën nga koo jëfandikoo ci ab safaan am ci merum yàlla ak sawaraam ñaar yépp mën na la ko may sunu borom tabaraka wa taala ci alquran boo demee mu ngay wax ay gaay yoo xam ne dañoo jëfandikoo seeni wax ay wax ay wax moo leen dugal ajjana jëfaguñu sax waaye wax ja dëggu ca xol ba waaye jëfaguñu dara loola moo leen dugal àjjana wa ida samiu ma unzila ila rasul tara ayunuhum tafiidu min addamci mima arafu min alxaq yaquluuna rabbana amanna faktubna ma alshahidin wama lana la numinu billahi wama jaana min alxaq wa natmau an yudxilana rabbuna ma alqawmi alsalihin fa athaabahum allahu bima qaalu jannatin tajri min taxtiha al anhaar xaalidina fiha wa zalika jazaau almuxsinin ay nit a ngi nii yoo xam ne dañoo déggoon rek yonent bi wala waa kër yonent bi di jàng alxuraan mooy Najaashi ak waa këram bañ ko déggee ñu gëm ko daal di wax jii day wax ju rafetee nii wax ju jekkee nii wax ju jaadoo nii gëm nañ ko wóolu nañ ko te ñu ngi ñaan yàlla mu boole ñu ca ña ko gëm ko seere te ñu ngi ñaan yàlla it mu boole ñu ca ñi nga xam ne ñooy bokk ci woy defar yi muy saalixiin yi nga xam ne wax jooje ñu wax Najaashi ak waa këram yooyu defaguñu dara waaye la yàlla wax mooy wa fa athaabahum llahu bi ma qaalu seen wax jooju ngeen wax ju rafet jooju te gëm ko ci seen xol yàlla dana leen ci fayee ajjana joo xam ne day sax dakk ajjana joo xam ne day sax dakk moo tax najaasi julliwul ab rakk waaye ba mu faatoo yonent bi sallallahu daf koo jullee julli salaatul ghaib daf koo jullee ngir jàpp ne lam waxoon ci làmmiñam gëm ko ci ab xolam jëfagu ko waaye gëm na ko kon yàlla fay na ko ca wax joojee te fay ko ca ajjana joo xam ne ju sax lay doon waaye ñeneen a ngi nii ñoo xam ne ñoom it waxa leen yóbbu fa jëm safaan ba safar safara la leen fa yóbbu rëbbum yàlla muy yóbbu nit ci sawara leen fa yóbbu du dara lu mooy ay wax yu bon yoo xam ne moom lañ génne ci seen lamiñ wa qaalat il yahudu yadullahi maghluula xullat aydihim wala waynu bi ma qaalu bal yadaahu mabsuutataan yunfiqu kayfa yashaa yahud yi nga xam ne yàlla daf leen rëbb soril leen yërmandeem lu tax mu rëbb leen soril leen yërmandeem mooy dañ ne yàlla dafa nay dañ koo wax ci seenu lamiñ yàlla dafa nay loolu lañ wax yàlla ne déedéet yàlla nayut yàlla ku tabe la ku tàlli la kuy joxe fu lu ko soob ak ku ko soob waaye seen wax jooju ngeen wax ci seen làmmiñ dana leen tabbal sawara bal yadaahu mabsuut walu aynuu bi maa qaalu walu aynuu bi maa yàlla rëbb na leen ci seen wax jooju te rëbbum yàlla mooy soril la yërmandeem soril la ajanaam kon loolu wane na eh, làmmiñ solo gum am solo ak wax solo gum am solo ba kenn ku ne war koo wattandiku xam ne loo mën a am ci lu baax làmmiñ mën na la ko may waaye làmmiñ mën na la may loo am ci safaan it làmmiñ mën na la ko may ngir noonu mu mel nag rëy googu mu rëy ak li mën a lor ak lim mën a jariñ moo tax sunu borom tabaraka wa taala saa bu ne mu duñu wattuloo sunuy làmmiñ dinu dinu dinu digal nu ba no boyal sunuy làmmiñ ci lu dul aw yiw wala ñu noppi saa boo xamee ne làmmiñ noppi naa wax aw yiw rek sunu borom def na ko na noppi bañ a waxati yaa ayyuha alladina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida dee leen ragal yàlla tey wax wax ju jekk ju rafet wax ju jekk te rafet dee leen ko wax ci seeni làmmiñ wa qulu linnaasi xusna dee leen wax nit ñi wax ju rafet da ngeen di waxante ci seen diggante na nekk wax ju rafet ju jekk wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan neel sama jaam yi na nañuy wax lu rafet nañuy wax lu jekk kon yooyu yépp ay aaya yoo xam ne day tegtale wax ju rafet wax ju jekk wax ju jaadu ni nga xamee ne noonu la ko doomu aadama war a sàmmontele ci aw làmmiñam mu dellu wattandiku loolu ñu wax ju ñaaw génn ci saw làmmiñ wax joo xam ne ju rafetul la loolu yàlla daf na ko wattandiku loolu bari ci alquran laa yuhibbu llahu aljahra bi suui min al qawl illa man wax ju ñaaw ko wax ko ba ñi di ko dégg nga di ko biral di ko tasaare loolu sunu borom tabaraka wa taala daf ne bëggul ku koy def sunu borom ku mu bëggul loolu la lay dal mara détali kon wax-wax ju ñaaw ak tasaare ko ak siiwal ko ci nit ñi ci mboolem jëfandikukaay yi ñuy jëfandikoo yépp dafa nekk loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala daf ko aaye te li mu doon garaaw nag tey la gën a garaaw ndax tey wax dafa yomb tasaare wax dafa gën a yomb wax yomb na lool waxukaay yomb na lool tasaare ay wax ci boppam dafa dafa yomb lool kon sunu borom tere nanu ko wax ju ñaaw waaye tere nanu it siiwal wax ju ñaaw di ko tasaare di ko jokk jolante na bi alsinatikum wa taquluuna bi afwaayikum maa laysa lakum bi ilm wa taxsibuunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim yéen a ngi nii di waxante ci seen biir di jokk jolante ay wax kenn ku ne jot jotali ko sa morom di wax ci seen làmmiñ loo xam ne dara leeru leen ca waaye ngeen jàpp na loolu lu lu ñàkk solo la te lu màgg la fa yàlla wax jooju ngeen di wax di ko woyofal di ko jokk jolante jàpp na lu woyof la lu màgg la fa sunu borom tabaraka wa taala lu rëy la fa moom kon ma dañ ko watandi ku baax a baax waaye boobu sunu borom tabaraka wa taala tëkku na fi kii wax wax ju ñaaw tëkku na fi ki koy tasaade ki koy siiwal waaye tëkku na fi ki koy doyee dal defe na du dara nangam rek la nang wax wax ju tuuti wax joo xam ne ju tuuti la ci wax tuuti la ci làmmiñ waaye lam mën a yàq ak lam mën a def rëy na lool moo tax wa taxsibunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim naka noonu yàlla sunu borom tabaraka wa taala rëbb na wala nee na bëggul ñi nga xam ne dañ koy siiwal kii wax li muy wax ak lu mën a mel ki koy siiwal moom moom ñooyam yow waxoo wax ji waaye dégg nga ko fab ko siiwal ko tasaare ko ci ñeneen nee na yow ak ki ko wax yéen a yem inna alladina yuhibuuna an tachia alfaxishatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunya wal axira yoo xam ne dañuy siiwal wax ju ñaaw di ko tasaare nee na am nañ mbugal mu rëy yàllaa ngi koy xaale ci àdduna ak ci alaxira kon xam nañu wax ju dul noona kenn waru ko def waaye kenn waru ko déglu di ko siiwal wala nga di ko tasaare wala nga di ko euh, yóbbu foo xam ne waru fa àgg kon yooyu yëpp ay aaya la ak addis yoo xam ne dañuy digal ñuy jëfandikoo suñuy làmmiñ ci wax ju baax waaye ñuy wattandiko suñuy làmmiñ ci wax ju safaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaat ci lu bari man salima al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadi ab jullit dëgg dëgg dëgg dëgg du koy julli rek waaye du koy woor rek loola cala waaye julli dëgg dëgg fañ koy xamee ne julli ak woor ya ak jaamu yàlla ya am na njariñ ci moom mooy aw làmmiñam da cay musal jullit yi dañuy mucc ci aw làmmiñam mucc ci ab loxo képp koo xam ne jullit yi muccuñ ci saw làmmiñ muccuñ ci sab loxo nee na sum jullit warta na ko seetaan du jullit gu mat man takaffala lii maa bayna lixyayhi wa rijlayhi atakaffalu lahul janna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dellu wax ne képp koo xam ne gaaranteel nga ma ci sa làmmiñ wii doo ci wax lu waxut sa pay bii doo ci jëf lu jëfuut nee na gaaranteel naa la ajjana gaaranteel naa la ajjana ku ma warlul ñaar yooyu rek ma gaaranteel la ajjana ñu waxaat yonente bi sallallahu waxaat Muaz ibnu Jabal laaj na ko ne ko anu aqatu bi ma naqul ndax suñ waxtaan yi waxtaanee ci grand yi di wax wax ju neex rek la ci jarut ci yoon yàlla dana danañ ko jàppee mu ne ko sakalat ko ummuk hal yakubu nnaasa fi nnaari ala wujuhihim illa xasaidu alsinatihim waaw waaw ndax dangaa defe ne ña dem sawara boo leen laajoon lu leen fa dugal ña ca ëpp seen làmmiñ moo leen fa dugal ñu dem sawara ña ca ëpp boo leen laajoon seen làmmiñ moo leen dugal sawar ñépp dal ne ko nit a ngi nii koo xam ne day wax benn wax benn baat rek jàppe ko lu ñàkk solo baat boobu dana ca am merum yàlla ba bàyyiwu ca xel ca wax ja bàyyiwu ca xel dana ca am merum yàlla moo xam ne dana ko sànni ci sawara lu toll ni penkook sow penkook sow ni mu soree benn baat danga ko wax bàyyiwu ca xel yàlla sànni la ci sawara lu toll ni penkook sow am na ci beneen lafs boo xam ne yaktubu llahu lahu biha suxtahu ila yawm alqiyaama benn wax boobu da yàlla dana la ci mere di la dencal mer ma ba yawm alqiyaama mu fayal ko inna arrajula la yatakallamu bilkalima min saxti llahi maa yalqaa laha baalan yazillu biha fi nnaari abada ma bayna almashriqi walmaghrib wa fi lafdin axar yaktubu llahu lahu biha suxtahu ila yawm ila yawm yalqaa kon loolu wane na ne làmmiñ lu rëy la làmmiñ lu lu lu lu lu lu lu lu am solo la loo xam ne ku ko yàlla xéewale def ca la la yàlla digal nga def ko ca te wattandi ko ca la la yàlla tere ndax lam la mën a jural ci aw yiw bari na lool waaye lam la mën a jural ci ab safaan it bari na lool kon loolu wane na importance gi nga xam ne làmmiñ walla wax am na ko solo cheikhul xadim radiallahu taala anhu mi nga xam ne saa bu nekk mi ngi laabiire ci lu ñuy amal njariñ ëllëg ak lu ñuy amal njariñ ëllëg lu ñuy jam amal njariñ ëllëg ak lu ñuy lor ëllëg dénk nañu ba tey nu wattu suñuy làmmiñ wattan wat wattandiku loolu wattandiku noonu ko lool jubal nu ci lépp loo xam ne mën nañ ko fa jëfandikoo ba muy lu am njariñ waaye wattandiku nu lépp loo xam ne mën nañ ko faa jëfandikoo ba muy lu ñàkk njariñ boo demee ca tasawud subaan ma nga ma nga amal lisaanu fa fa alaman bi annahu axdabu aadaika fahfadannahu sa làmmiñ wi nanga xam ne mooy noon bi yées ci sa noon yi mooy sa làmmiñ wi noon bi yées ci sa noon yi nee mooy sa làmmiñ wattu ko wattu ko ataakahu llahu li kay tukathira bihi tilawata alkilaabi muksira kitaabi muksira dikra alilahi wa takunu murshida bihi ila tariqi diinin ubuda wa ma bi xalbika bihi li tuthira min bihi min alxawaaiji wa rabban tashkura nga xëy da nga mel da nga ko laaj na ko sama làmmiñ wi boo ma ko wattuloo lan laa ci war a wax mu ne li tax yàlla bind ko moom nga ci war a wax làmmiñ bi li tax yàlla bindal la ko moom nga ci war a def loo ci def leneen la tax yàlla bindal la ko mooy nga di ci jàng alquranul karim jàng alquranul karim afdalu ma nataqahu man yadkuru wa lafsu laa ilaha illa allahu muhammadun aslahu ilahu afdalu ma nataqahu man yadkuru li ne du tudd lépp li ci gën mooy tudd yàlla tudd yàlla ba ca ëpp doole mooy laa ilaha illa allah kon dee làmmiñ bi li tax yàlla bindal la ko mooy dee ko ci tudd dee ko ci tudd tudd tudd yàlla waaye na nga bari looy jàng alxuraan lool na nga ciy ja looy jàng alxuraan lool Sëriñ Tuubaa sonn soññe na lool ci jàng alxuraan lépp lu ñuy def ci lam lu ñuy jàng ci làmmiñ jàng alxuraan moo ci gën a am solo lépp lu ñuy wax ci làmmiñ rek jàng alxuraan gannaaw tudd yàlla moo te te te jàng alxuraan sax tudd yàlla la jàng yàlla la waaw ci boppam tudd yàlla la kon tudd yàlla te jaare ko ci jàng alxuraan mooy li gën a am solo ci li ñuy def ci aw làmmiñ waaye ndax loolu rek laa koy jëfandikoo mu ne la déet wa takunu murshida bihi ila tariqi diinin ubuda waaye nga di ko jëfandikoo ci la laa biire nit ñi laa biire doomu aadama yi di leen jubal di leen gindi di leen orienté ci wax lu baax ci eh, loo xam ne lu ñu war a def la lu baax nga wax leen ko loo xam ne lu ñu war a xam ci lu baax la nga xamal leen ko ci saw làmmiñ loolu it mën nga koy jëfandikoo ci loolu wa ma bi qalbika bihi li tuzhira bihi min al awaaxiji wa rabban tashkura di ca sant sa borom bu baax a baax a wa amma bi ni'mati ka fa xaddis aw làmmiñ dañ ciy sant yàlla niñ koy sante ci xol di ko sante ci ay jëf waaye aw làmmiñ it dañ koy sant yàlla waaye nag yàlla it bindal la ko ngir nga faj ci say aajo yi nga xam ne waxa ko mën a faj yépp aajo joo xam ne waxa ko mën a faj soo ko waxul génne ko ci yow du faju nga di ca faj aajo yi mel noonu kon yooyu nga xam ne moom la tudd moom rek a tax yàlla bindal la sa làmmiñ wi kon jëfandikoo ko ci yooyu si kar jàng alxuraan ak jubal nit ñi di leen laabiire ak di sant yàlla ak di eh, feeñal ci say aajo yi nga xam ne yu mënta ñàkk la ta aw làmmiñ moo koy mën a feeñal kon yooyu lu am solo la loo xam ne ñun ñëpp war nañoo sàmmanteeg loolu te téere yooyu nga xam ne sëriñ bi da koy bind di xamal yu mel noonu nu góor góorlu ba jéem koo xam ndax loolu dong nga taxoon mu mu def ko ndax li lim xamal ci ay ci ci sunuy cër yi feeñ ak sunu xol ni ñu ko war a sàmmee su suñ ko doon jàng di ko jëfandikoo noonu ñu ko jëfandi ni ñu ko war a jëfandikoo nii nu mel duñu duñu ni mel wala li ëpp ci nit ñi ni ñu mel duñu ni mel ndax loolu rek la doomu aadama moom du xol la ak jëmm bu xol bi baaxee sell ya ca war a génn yëpp génn ca ya ca war a nekk yëpp nekk ca cër yi di jëf li war a jëf kon day doon joo xam ne mën naa mucc fii mën naa mucc ëllëg mu yamut ci loolu ci lim baaxoo moom daf ñuy xamal saa bu nekk war ngeen a def nangam waaye war ngeen a wattandiku nangam sëñ bi li gën a yéemu ci ay ay ay ay taalifam mooy dañuy wax liñ war a def bu nu bu nu teree dara wala bu nu digalee dara dañuy wax nun ko war a defee waaye dañuy wax it safaan ba nan lañ ko war a bàyyee lépp da koy da koy leeral ci biir xasida yi wax na ci biir xasida googu ci boppam ci sa subaan ba tey ni mu ñu waxee li ñu war def ci làmmiñ noonu lu ñu waxee nan lañ war a wattandikoo làmmiñ amma lisaanu faxfaduha abada min athamaniyati yatikum huda làmmiñ waa ngi nii waaye na ngeen ci wattandiku lépp loo xam ne lu baaxul la rawatina juróom yi nga xam ne moom lay bañ a moom lay bëgg a tudd juróom-ñetti mbir yoo xam ne mooy aafatul lisaan mooy gaafug làmmiñ lañ cay tere ñu wax ko ca juróom-ñetti mbir la ba ci jëkk mooy alkadib wax lu amut alkadib yàlla ci boppam sunu borom tabaraka wa taala daf koo bañ wax lu amut yonent bi sallallahu alayhi laaj nañ ko ne ko ah, ndax ab jullit dana naan sàngara mu ne waaw ndax ab jullit dana njaaloo mu ne waaw ndax ab jullit dana def nangam dana def nangam waaye ndax ab jullit dana wax lu amut mu ne déedéet ab jullit du wax lu amut wax lu amut nekk ci te làmmiñ lañ koy defee nekk noonu lu rëy lu garaaw loo xam ne suñu borom tabaraka wa wattandiku noonu nañu ko lool wattandiku ko lool nga ne ko ban moo ca des mu ne alxiibatu walxiibatu alkasibu walxiibatu jëw làmmiñ mooy jëw jëw mooy wax sa moroomam jullit loo xam ne bu ko déggoon du ko neex doonte na dëgg la waaye bu ko déggoon du ko neex doonte na dëgg la bu dul dëgg mooy mooy ñàkk wax dëgg waaye bu dee dëgg moo tax ñuy wax jëw day doon dëgg la ngay wax day doon dëgg waaye ka ko wax bu ko déggee du ko neex sunu borom tabaraka wa taala nee na nan wattandiku jëw dem na ba nurale ko ak médd yow mu fekk lu médd ci mbedd mi nga fab ko di ca lekk di ca lekk na mu ñaawee ci gis na mu ñaawee ci jëf nee na jëw sa moroomam jullit mu ngi mel ni nga jël aw yaramam wala nga jël am médd di ko lekk أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله الرسول na ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lama axiihi mayitan nee na jëw mi ngi mel ni nga romb sa sa moroom moroomum nit moo fekk nga fab ko di ko lekk nee na noonu la jëw mel nga bu baax yonent bi ay nit ñuy dox waaye ñu am lu ñuy wax mu di ko dégg mel ni dañuy tudd seen moroomam jullit di am lu ñuy wax ci moom yonent bi dem ba yàgg mu romb bàyyi ma bu medd ci àll bi mu taxaw dane leen dem leen lekk ca lee ñu jaaxle lool mu ne dem leen lekk ca xam nga mënuñu caa lekk waaye mu ne leen li ngeen doon def ak lekk ci mbedd mii ñooyam li ngeen doon wax seen bokkum ji moom ak ci mbedd mii ñooyam kon jëw nañ ko watandiku bu baax a baax a baax ak werante werante werante mooy waxanteeg nit wax joo xam ne bëggoo dëgg juddoo ca waaye dangaa bëgg a yay dangaa bëgg a wax rek ba yey ki ngay waxal benn njariñ amu ko werante dégg naa ci mag mu ne sëriñ Saliou radiyallahu taala anhu daana wax ne képp ku ngeen gis bàyyiwut werante ak biddanti awagul ci yoon yàlla tegagul tànkam ci yoon yàlla werante ak biddanti ku ko bàyyiwut rek awagoo ci yoon sunu borom tabaraka wa ak di di di di yëjju di reetaan di xeeb sa mbokkum jullit yëjju di xeetaan sa mbokkum jullit loolu suñu borom tabaraka wa taala daf ko bañ lool ba wattandiku wattandiku loo ko ci alquran ak ci hadis yu bari ñëw di tere nit ñi ñuy yëjju seen moo moroomum jullit di ko xeeb di ko teg ay baat yoo xam ne baati xeebeel lay lay gën a nuru wal xulfu fil waadi ak ak fausse rendez-vous loo wax nit doo ko def dig boo ko dig doo ko doo doo ko def muy jàngoro joo xam ne dafa mel ni dafa tasaaroo lool ci jullit yi te lii sunu borom tabaraka wa taala ba leen ko waxee yàgg na ba mu leen ca wattandiku loo leen ko yàgg na lool ba dañoo dem ba mel ni sax respecté sa sa say wax wala respecté sab dig day jikko yi ñeneen ñu leen ko adressé te fekk na jullit bi moo ko war a gën a adressé woo ndax kenn njëkk ko ci kenn gënu ko ko war a war a fonk kon respecté say wax respecté say jëf sa dig loo dig nit fas yéene koo def ñoo wax naan du ma wax du ma wax def ko waaye lu ma wax nar naa ko lu ma wax def ko kenn mënu ko yàlla rek ko man waaye lu ma wax nar naa ko bu amutit la tey am eh, dogalu yàlla lay doon wala anil qawli ak di wax wax ju ñaaw nit ñi waaw li ñuy wax saaga di wax wax ju ñaaw joo xam ne ju safaanu la nga di ko fab di ko jëmale ci doomu aadama mel ni dafa xew léegi nit ñi di ko di ko def nit ñi di ko diglu nit ñi di ko tasaare muy jikko ju ñaaw joo xam ne yàgg nañ caa eh, eh, tëkku yàgg nañ caa wax lu ñaaw al mus al muminu la yakunu laanan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jullit dëgg-dëgg du nekk koo xam ne ay waxam wax ju ñaaw lay doon ay waxam wax ñaaw lay doon taskiyatu nafsi sellal sa bopp di tagg sa bopp maa nangam maa nangam maa nangam fala tuzakku anfusakum bu leen sellal seen bopp yàlla rek moo xam ki sell ëllëg la koy xam nag la koy wane waaye fii ci àdduna bari na ko fi dox yàlla suturaal ko waaye bu bu ko dee waxee nag wane na moo mel nangam moo mel nangam loolu bokk na ci li nga xam ne dañ koy tere suñu borom tabaraka wa taala wax na ko ci alquran ne fala tuzakku anfusakum lii daal lenn la ci cër bi nga xam ne war nañ ko wattandiku cër yépp la ñuy waxtaanee waaye bii nag lañ tànn tey muy làmmiñ muy loo xam ne am na ay jeexit yiw yu baree baree baree bari waaye am na ay jeexiti safaan yu baree baree bari kon waroon koo wattu rawatina ci jamono ji nga xam ne waxukaay yi dafa gën a bari waaye tasaarewukaay yi wax yi dafa gën a bari benn wax nit moo ko daan lii lii yàlla di wax di ko tere ci làmmiñ am na jamono yoo xam ne kenn koy dégg wala ñaar a koy dégg waaye léegi nag yow mi wax boo waxee ba noppi mën ngaa toog fi nga toog bés a buto ay junni junni dégg li ngay wax te kenn ku ca nekk bakkaar bu toll ni bi nga ci am dana ko ca am waaye da dajale ñoom seen bakkaar yi ñam am yépp yow mi ko wax amaat bakkaar bu toll noonu kon nañ wan nañu wattandiku loolu bu baax a baax ci eh, eh, eh, jumtukaay yi nga xam ne yàlla dénk nañu ko nu di fexe di ci wax lu baax di ci tasaare lu baax te bañ cee wax ab safaan ak di ci tasaare ab safaan waaw naka doon tam tasaare googu ki koy wax ak koy diglu ñoo yem ab atte waaw ki ki ki nga xam ne mooy wax ab safaan ak ki nga xam ne mooy diglu ab safaan ñoo incha allahu tabaraka wa taala ci ajuma yii di ñëw danañ waxtaane mooy diglu kii wax nga di ko diglu ndax ku doon waxta amoo ku la diglu rek doo doo wax ku doon waxta amoo ku la diglu te gis ku gis réseaux lii ci xew nga xam ne benn wax dañ koy wax wala benn jëf dañ koy jëf nga xool ñu ne la nangami junni yi nit diglu nañ ko nangami junni yi nit seetaan nañ ko te muy wax ju safaan kon loolu responsabilité bi dafa gën a màgg waaye wattu gi dafa gën a war a nekk loo xam ne sunu soxla lay doon kon wat diglu googu ni wax ji mel noonu la mel la ca war ci nopp yi la yàlla dénk la nga ca war a jëfandikoo ak la nga ca a jëfandikoo incha allahu tabaraka wa taala ajuma yi di ñëw danañ ko waxtaanee yal noonu yàlla dimbali ci wattu loonu suñuy làmmiñ ñu di ko ñu ci wax aw yiw te wattandiku loonu suñuy làmmiñ ñu di ci wax bañ a wax ab safaan yal noonu yàlla dëppale ak sëriñ Tuubaa mi nga xam ne wax na ci làmmiñam lam ñaan yàlla dëppale ñu ak ñaan googu ne saddit lisaani nawwir janaani safi amaani wazid barai wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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

الحمد لله الذي الحمد لله الذي وسع برحمته الشاملة وبلغنا بمنه الأزمنة المباركة الفاضلة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده لمي اللمين ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشتغلوا قبل أن تشغلوا وصلوا على وصل وصلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا وأكثروا من الصدقة ترزقوا وامروا بالمعروف تخصبوا وانهوا عن المنكر تنصروا وإن من علامات العقل تجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتسود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور ولا تفرطوا في جنب الله فقد علمكم كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اتبعكم وسماكم المسلمين الحمد لله الذي أشرق أنوار اليقين في قلوب من شاء من العباد ونشهد أن لا إله إلا الله الكريم الجواد ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسوله الذي بنوره أضاءت الأهوار والأمجاد أما بعد فيا أيها الناس إن آيات كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا تزال تدلنا على أن الخير كله في الانقطاع إلى الله والإهراض عن كل ما سواه والمسارعة إلى ما ينال به رضاه ومن أفضل ذلك الصلاة فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومن أجل ذلك tataaba'a al-muttaquuna al-ghuduwwa war-rawaaha ilaa al-masaajid فحافظوا رحمكم الله على هذه الخيرات وحضوا بالنواجذ قبل الفوات فتح الله لكل خير بصيرتنا وبصيرتكم wa tahhara min kulli sharrin sarairana wa sariratakum amin yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimin واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على السلام حي على الفلاح قد قامت صلاه الله وكبر الله وكبر لا اله الا الله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 والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله akbar allahu akbar allahu akbar Allah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 allahu akbar assalaamu aleykum